te ñun defuñ fi leen lu bon ndax ñun dañuy yeb dem yooru ñëw teg nañ ci tey teg nañ ci gasoil boo xam ne nii rek ci la ñuy ñëwaatee mais amul leneen loolu rek la waaw merci kon. jërëjëf kon mi ngi noonu ñu continuer ba léegi jël ay réaction ci ñi nga xam ne gis nga ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci bus bi ñu ngi naan ñu naan jomaay voilà kilifa gi noo def kaay. ça va noo def. waaw yaa ngi ci jàmm. baax. lan mooy problème bi. problème bi daal lenn la ñun dañoo xëy liggéey ba mu naaj tàng yeb suñu oto normal jékki-jékki gis ay bis yoo xam ne xamuñ fu mu jugee. ñun état moo ko fi indi pour wàññi client yi paas ah ñun suñ liggéey dafa nekk loo xam maanaam lépp loo ci def dañoo war a teel a yëgal ñu xam ni ñuy taxawee ñun waaye xëy xëy fekk oto yëpp nga ne dañuy o paas xamoo yow ñun bu ñu demee ñu yóoru ñëwaat te Fuuta ak fii dafa sori fii ak Fouta boo jugee Rousseau gi ba fii doo yebaat benn client nañ ubbi say porte voilà loolu tax ñu yokk paas yi waaye du question dañu yokk paas yi pour bëgg ji leneen non loolu kese tax ñu yokk paas yi ñaari gasoil aller retour xam loolu mënoo yeb benn 10 000 francs dem Fouta weer waat ñëwaat ko boo ñëwee doo jase dara même 10 sa sax doo ko jase loolu la waral ñu yokk paas lool loolu kese la. waxtaan amul seen diggante ak moom. état bi wax nu ñoo dara barki dem daal ñëw nañ fi ñëw nañ fi bi ñu fi ñëwee dañuy dañuy wàññi paas yi. ñu ne waaw d' accord waaye après dañoo xëy xëy gis oto yi ñun amuñ ci beneen kii quoi maanaam ab daal neexuñu quoi wax dëgg yàlla suñ moom li muy def nañu waxtaan ak ñun ba pare moo gën moom chauffeur yee tax ñuy wax. ñoom moom transport kon booy def dara da ngay ñëw waxtaan ak ñoom am accord waaye mënoo xëy xëy indi sa oto fii ñun comprendre ñu mu demee nii te ñun moom la ñuy yaakaar suñu lépp waaw ñun lii lan am ah, bi nañ ko tëj parce que amuñu lenn lu dul transport kon bu ñu jékki-jékkee def lii rek te yëgluwuñu rek ñu ngi si leneen oto yii nii lakkuñu lu dul 300 gasoil oto yii yii nii ngay gis nii dañuy sol gasowal aller retour duñ yab dara aller retour ñu sol ko gasoil ñëw ñu bëgg a ñëw rek def seen affaire yi nii nii nit boo koy def benn affaire da nga koy tàggu wala nga yëgal ko mais doo jékki-jékki am sa doole ñëw def ko mag Sall nekk na fi ba jóge fi te deful lii te bu fi nekkoon du def lii. kon nit ñi daa am na ñuy doxee mais bu ñu jékki-jékki rek def li ñuy def si ma tey wala ma do am doole amut sens ñun ñi ñëpp ay doomu aadama la ay citoyen la ay sénégalais lan mais bu ñu ko defee nii nan tàggoo tàggoo dafa am sens. voilà merci beaucoup jërëjëf. wax na am na solo ñoo ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp ku ci nekk ci turam ak santam mais ay nit bu ñu bokkee lu ñu mënta séddoo danoo war de waxtaan ndax réeroo amut ñàkk waxtaan moo am. waaye nag benn xalaat bi boo yaakaaree ni benn xalaat rek mooy doxal Sénégal loolu chaque jour doo jog ci def loo xam ne da ngay saw askan. parce que ñun transport mbir ña koy dundal duñ ko yàq ña tàbbi ca biir mbir di wut luñ ca dundal lu yàq mbir ñooma wax nag bu feebaree nopp ya koy dégloo war a wér mais ñin ñin maanaam état Sénégal ni mu suufalee transport su ci defoon loxoom amaana maanaam. lim def nii bu ko touché woon ci transport transport am jàmm parce que carburant bi mënoo di ko sol en même temps montage yi fenn fooy jaar te la la ak ñoom doo ko def te it maanaam bëri na ñoo xamante ni si ni ñuy lekk xaalisu transport koo ci joxoon tey jii wata du def première tey jii nag maanaam ab dëkk nag bu fa dëgg daanoo suba ba ngoon jot ñu di ko seet gisuñu ko borom barke la nu yay waaw l'expérience c'est la différence nit kenn du ko bu ndoxataal parce que yàlla mi nga xamante ne si ni moo wàcc a jàmm ñi sax dañoo wax ñu toloorante ci suñu biir mais lii nii yaakaar na ne ñun lañ koy def waaye kër njugub yaakaar naa laka lakaale kër pitax ñun dañoo pare woon opposé ne wu bi état bi de xeex ñun état def dañ cee dugal suñu loxo surtout Ousmane Sonko ak Diomaye fay man duma leen sikk ñoom laa àndaloon di campagne mag nag mën naa bacim réew waaye bu dee mag mu baax mais maanaam li waral lii lépp ay influencement la parce que maanaam opposant day taxaw di influencer loo xamante ni si ni loolu mag ñu naan doxatu gileem kaw la jëm moo indi lii mais nag wasalaamaaleykum wa rahmatulah ñoo ngi sant ñëpp mais nag mënoon nañ koo dundeek ñun neneen noo xamante ni si ni ñun ca la ñuy gën a kontaan parce que lii ñu ñuy xeebal ay jabar lan ci yor doom yor ci suñu ndey boo ma xoolee nii ak sama tilimaay doo ma bëgg a jox micro. barka Seydina Muhammad da ngay yab di dem war a dem Fuuta doo romb douane doorom romb police doo romb gendarme du question ko yàq der mais tamit yaam a gën a xam dan ñoo war a toloore ñun sonn nan yuuxu nan bay bëgg a dee jàppale nañ leen guddi jàppale nañ leen ba bëccëg mais ba tey rangooñi baadoo la moo bëgg di dëkk ci di siim jaray rey buur yàlla nag gëmut nelawut da nga nit nag bala ngaa tax ci moom sa intérêt personnel da ngaa war a taxi ci moom intérêt personnel am mooy waral boo ko soxlaalee mu yomb ndax mag ñi dañ ni booy ñagum ñag bëgg la ngay ñag-ñagu ñag ba dafay diitu la nga fa war a def ñun nag li ñu bi digoon ñun transport ak lim ñu faya tey wóote na mais nag silmaxas jaan yàllaa yorub dundam la bay dunde ba saxub sikkin bu góor góorgóorloo tuuti dem ca ba dee safoor nag kenn ko bëgg muy ndayam ak baayam ñeneen ñi ci des yaa ma gën a xam ndax dañ ne ko wopput ña koo xamoo say bañ yatu noon du reer ngembal saay-saay du tas kon juboo ba juboo jeex jëf ak sa jëf ju baax a ca keneen ko mën a jubóol ban yor ko ci bàmmeel da ngay élevé sablal tëdd ca mais boo jubóog sa jëf fu mu mënta mu tëdd fa ça va gannaaw naa vraiment sama xol a fees ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp vraiment journaliste yu amuk dal ngeen tax xam ngeen ne xale bi ngeen di waxal du ci comportement am mais am na esprit mental wa rahmatullah jërëjëf kon nag mi ñu jël euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy clients yi ba léegi bu ko defee ñu wax ñu naka la ñu gisee li nga xam ne moom la ministre bi daal di ji salaamaaleykum. waaleykum salaam. sant yàlla ba wér a wér. gis nañ la ak sa euh, mbuus fan ngay euh, fii nga jógee mais fan nga jëm. maa ngi jëm saint luy mais amulu dara du ñu sant Jomaay ak Ousmane. Hmm. dinañ ñaanal yàlla nu yàgg fu loolu. Hmm. lu ñu def nii non commencement la rek lu si kanam rawul bët. Hmm. dina ne eh, eh, chauffeur yi nee nañu waxtaan amul seen diggante ak ñoom ba lii nga xam ne ñoom def nañ ko dañ cee indi euh, dañ cee am frustration lan nga lay wax ci loolu. non non pas frustration parce que loo gis passe bi benn tarif rek la mais duñ toog deux jours avant euh, euh, deux jours avant événement bugg yokk pas yi du dugg si yoo xam ne kenn xamu ko parce que comme que dina jub ak jubal jubanti mais nuñ dox loolu transparente boobu nuñ ko am dañ ko def mu jeex benn yoon. mais loolu rek mooy euh, yoon bi quoi ñii dañu ñëw taxaw yoonu jubbante ak yokkute mais Diomaye mi ngi si tànk boobu kon ñoom ñi ñu falka duñu war a nekk si tànk yooyu jàppale leen dimbali neen du suturaal leen loolu kese la ah. pour Sénégal mën a avancer jëm sa kanam loolu rek mooy àdduna. Dakar Saint-Louis 100000 francs CFA. c'est bon c'est agréable. waaw merci merci beaucoup muy tur oto bi voilà kon mi ngi noonu ñu wéy ba léegi di jël ñi nga xam ne ñoom ñoo fi euh, nekk bu ko defee ñu kaay kaay nii. ñu mën a joxe li nga xam ne moom mooy seen gis-gis ci dogal bi nga xam ne euh, euh, le président daal dina koy jël jaarale ko ci ministre bi nga xam ne moom la ñu dénk wàllu infrastructure transport terrestre et aérien di El Malick Ndiaye daal di jël li nga xam ne moom mooy euh, dogal ñu wàññi li nga xam ne moom mooy paas sile ñëw itam ci li nga xam ne moom mooy Euh, bus yi nga xam ne daal dina koy indi fii nga xam ne moom moo ci gaaru routière boo maraîcher gis nga réaction yi ñenn ci ay chauffeur kontaan nañu ndax lan ne nañu waxtaan amul seen diggante ak ki nga xam ne moom mooy ministre bi dañ leen koy nangul waaye itam ñenn ci clients yi ñoom dañoo d'accord ci li nga xam ne moom mooy tarif bi nga xam ne daal dinañ koy wax ñu ngi leen nuyu bu baax di la ziar. delloo ziar bu baax sëñ bi naa def maa si jàmm baax alhamdulilah. ngay ñibbi wala da ngay jaay. non dama doon jaay nag ci garage bi. waaw damay ñibbi suba incha allah. alors noo gisee euh, dogal bi nga xam ne ministre bi jël na ko. dama cee kontaan bu baax a baax a baax. Hmm. te xam ne lii bu yàgg la war a am. Hmm. président ji fi jaar yëpp dañ seetaan dañoo seetaan seetaan askan wi trop lii événement bu amee doomu aadama dañuy bëgg a dem chauffeur si transporteur yi téye seeni oto di yabloo clients yi ñoo xam nit bu yoree fukki ni war a dem Casamance nga yabloo ko vingt cinq mille fayloo ko ay bagaasam bu àggee du dese dara war a dellusiwaat fii di liggéey. kooku metti na trop metti na trop vraiment lii ministre bi def moom kontaan naa ci ànd naa ci te képp koo xamante ne gis nga coonoy garage bi ak ni fanaane biig da nga ciy kontaan yërëm nañu clients yi trop trop trop trop trop trop métti na kii li mu def yéex na koo def macha allah na jëm kanam. mais la moo tax chauffeur yi ñoom kontaan nañu. waaw parce que lii du leen neex nit ku nekk boo ko bàyyee ci li ko neex mu sonal doomu aadama yi parce que da ngay dugg ci benn biis mu yabale 15000 réeral wàcce la fu la neexul xam nga kooku itam neexul wax dëgg yàlla ah ngay wax ci biir ñu saaga la doo mën a fayu xam nga loolu doy na waar trop loolu bari na ci man Touba laa dëkk mais damay dugg biis jël biis dugg werante boo xam ci biir amaana ñu yàkkale la foo xamante si ni àggoo fa nga war a dem dugal oto boo xam du la àggale ngay def ay trois fois diggante fi Touba rafetul rafetul vraiment rafetul kon lii dañ ciy sant bu baax a baax tey ñaan yàlla mu jëm kanam bu baax a baax yow fan nga war a ñibbi. man Touba laa war a ñibbi incha allah waaw. léegi Touba euh, ak euh, Dakar su ma jëmul 4000 francs CFA la. waaw 4000 francs 4000 francs francs xam nga loolu tubarkaale te démb wala tey ci fajar ñu ngi ko doon yabe ay 10000 ay 8000 ay 9000 yooyu xam nga loolu métti na man bu ma jëmee Touba yor samay xale yor sama njaboot yor sama xar nga fayloo ma 10000 fayloo sama xar 5000 ak njaboot gi ma yor bu ma demee duutuma dese dara te ëllëg war a dellusiwaat fii yooyu vraiment métti na trop wax dëgg yàlla. moom métti na trop jërëjëf merci. grand noo def salaamaaleykum ah mais grand looy daw kay may ñaari moo kay may ma moo <laughs> fan nga war a dem. man Kaolack. noo gisee euh, li nga xam ne dogal bi nga xam ne ministre bi jël na ko. ah c'est quelque chose à encourager hein que maanaam gars yi li ñuy yokkee tarif yi de de manière excessive euh, foog naa nii rek lañ mën a lutter contre ça en fait. parce que boo nee gars yi ñu wàññi prix bi euh, mu te contrôlé woo leen duñ ko wàññi je pense alors que nii rek nga mën a lutter contre ça nga andi say propres moyens waaw et je pense que même moo gën a sûr mën naa wax parce que on on voit que c'est des hommes de confiance qu'on mi mis pour euh, pour nous conduire en fait en en sécurité waaw. C'est une initiative à, à remercier en fait. Merci. bon voyage ñi nga xam ne jot nañu euh, jël oto ngir euh, ñibbi fi nga xam ne moom mooy seenu euh, gox.